waalaikumsalam salam nu ngi delo dolin ziar di ñaan dolin dool leen jam yal na yàlla dool leen jam yéen ñi fi des leen ar may leen ngeen tundo ba doyal si jàmm ak salaam tabarakallah <coughs> wow mm waaw dëkk bi xam nga ginnaaw bi nga xamante ne nuyu nañu bokk jullit yëpp ak mbokki chrétien yeeg tout le monde parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk <clears throat> ñu bàyyi xel si ne coow li bari na waaye dafa am loo xamante ne toujours rek boo ko oyofalee rek mu oyof <coughs> waaye nag ñiy jàngatam si réew mi léegi dañu xam ne cool yi looloo tax mu bari dañu bari kaar te loolu doon ñaan yàlla nag mu am ñu jàng ba kenn ku si nekk wóoru boppam ne moom mii ka xam na lépp man na lépp waaye nag man loolu garaawul si man waaye li garaaw mooy réew mi nu yóbbu ko si gaal goo xamante ne réew mi ma si su dugg ñi wax ay ay ay facture ñi ne facture bi dafa jog ñi ne facture bi du jog dafa war ra taxaw bu mu ra taxaw wa ta du len tok rek waxtan rek man day wax fa dégg ne yalla da dama ci noppaloo ko waaye noppaloo gi ma ma ci noppaloo ko mola la gi ma ci am moo la ba nit jogate ne dala marsa <clears throat> nan ka wacce mo marsa takadari dari ko ño andak ak ba faanu job ñi jàppa fekk no kaas fukki fanaa juróom do na si kala kaas u teye ko teye nañ ko wacce nañ ko wacce ñu nekk si jamm encore parce que rew mi xam nga buñ ko bëggee seddo day bu fekkente ne dañ bëgg a séddoo réew mi day yàqu fokk ñu muñ mag ñi dañ daan muñ am na sax loo xamante ne bu ko jaraaf waxee ñu ne non parce que jaraaf nii dafa faril Macky Sall dafa def lii dafa def lale léegi comme ni nga xamante ne noonu la war a demee man si sama xalaat teel a yuux amul njariñ yuux say yuux ñu xam lii ngaa yuuxu lan la moo am njariñ xam nga man ban facture la man man sama facture dafa dem ci six cent et quelques mille six cent quatre vingt et quelques mille waa six cent et quatre vingt et quelques mille ma doon wax wax joogu compteur ba taxaw nu ne na wax joogu du ma ko fi mala riiti riiti nu indiwaat ma benn compteur baa xamante ne dala dox mais ni moo doxe doxul sax dala naaw wallaay wallaay ñu indil ma cinq cinq cent quatre vingt dix sept mille et quelque lañ ma indiloon indilaatal ma benn bu six nangam nangam andiwaat baa seete daal li ma soow sool yi lépp fi ma toll nii dafa ne mën a nag ma yóbbu million huit cent et quelque wala deux millions et poussière waaye man man man man dama jàpp rek Guy Marius Sagna lii moo daj moom la ma daj moom la keneen di daj gii bu fekkoonte ne parce que am na la loo xamante ne am na ñoo xamante ne mën nañoo fekk aw ay mu di ko soppi def ko leneen man sama classe gi googu la waaye nag dama jàpp rek xanaa dinañ ko defaraat si ka defar ko ba mu baax parce que nun Sénégal dañu bokk réew mi te waruñu kaa tas waruñu kaa tas waruñu kaa tas caaxaan yi noo caaxaan ci réew mi waxante lii nu war a waxante mu la dëgg man noogu la ma ko gisee eh mbir mi kat dina dëgër ni koko kat at mii wala ciment yi jëkk yi dina dëgër ni koko kat lu prévoir ne dala dëgër ni koko waaye jëkki-jëkki rek xëpp nu ay bagages yaa xamante ne dala mit sax nu boppa loogu garaaw na mais muñ mag ñi daan daan wax ne ku dund ba déwén lekk ba déwén wala déet waa ngoon lii maam maam dund suñuy bàyyi dund ko duñ ko dund man de bëgg naa dund lii sama bàyyi dund ko fa diggante yàlla nu ñaan pour que réew mi kenn ku nekk delloo si sa xel te ñu xam ne lépp loo xamante ne am na fi waxtaan mën na ko defar si biir waxtaan woowu ma am yaakaar ne waxtaan wii nuy waxtaan yàgg naa ko wax nun ñii di coutume dañu ber coutume dañu ber xam ñu ber parce que ñun suñuy dëgg lañ fi nekke sunu aada lañ fi nekke sunu lépp leen fi nekke waxuma la coutume ak ndakaaru kese Casamance coutume nga fa sunu mbokki séeréer yi ñu nga coutume tukulóor yi ñu nga coutume ka nekkaa ngi sa sa coutume boor ba nekkaa coutume am ngoon nan lay mën a nekkee ñu ne dialogue la ñuy def ci réew mi pour xool nan la ñuy doxalee réew mi ak teet naka mooy gën a rafet ñu jël coutume bi son kalaas gi sànni fële ne bokk ñu si wàcc waaw suma suma classe gi bu ñu bokk si wàcc kuy bokk si wàcc nee na waxante ma defe ne dialogue mo la ñu waxante dëgg rek daal di seet nit ki ñu wara doxal rek seet ba mu rafet rek nu bayyi nu defar ka ta ko defee réew mi toujours da danaan ñong rek sa kaw waaye man ko si melni man dama ne 1 million 800 xawma 2 ma yi ma indil tegal maka yag yag yàgg dama kay fay man duma ma wax ne du fay parce que yalla lu muy dogal si jaam lolu moy am nanu bàyyi loolu sunum xel te xam ne président bu bëggee yokk tamit yàlla mën na def mu prononcé ko wala gars yi directeur ba yor programme bi prononcé ko waaye ngi toog ay fan ak programme bi fu mu toll nii moo daal di ne kat léegi gars yi dañu gisoon ne nii la waaye yàlla suturaal nañu ba nangam ñëw na duggaat si réew mi nu defee que nii te defee que nii defee que naa mën naa am mën naa am damay wax toujours benn wax yàlla si boppam buy tànn du tànn ku bon président bi bu Sénégal bii Sénégal réew la si réew yi xam nga ban problème la ñu am lii daloon président Ablaye Wade mu ànd ak ay nit yu bon noonu la président bi àndee ak nit ñu bon parce que moom bonul mais ñii mu àndal ñoo bon ñoo bokk bonaat xamul tax nit bu la jëlee jox la pal dafa jël ci lii mu moom jox la war nga ka té téyin bo xamantene da ngay xamné ki kat si wërsëgam ci nguuram dafa yëkëti jox la nga té ke ni nga ko war a téye mais gaay dañ leen di ko maa ngi koy wax tous les jours président Macky Sall dafa la jël jox la pal geweli dar la ku nekk taxaw ne waw say mbokk taxaw waaw ndeyam ak a liggéey ndeyam ak a liggéey d'accord waaye bu président Macky Sall gisee défaut ba kii kat au lieu que ñu ne kat président Macky Sall moom day gis na ne kii mënula liggéey wàccee na ka dootul wax ndey gaa liggéeyoon de dan naan diw la kii ka baa demee keeke kii rek nu kala na nanu bàyyi di dox ci lu yàlla bëggul yonent bu bëgg ko président moom it na xam ne gars yi mu àndal bari na suñu bande am na ñu baax nag mais bari na si ay nit yu bon administration bi nan ko organiser ba nga xamante ne ñoom ñiy jàng bàyyi jaraaf yi sundooy dina dem di xëccoo dara administration mais na mën na superviser ba xam ne lii baaxul ñu ne lii baaxul président ba xool naa ne man bëgguma sax pal bëgguma kenn pal waaye ne ma boole rek si ñi nga xamante ne buñ gisee lu yoon si réew mi rek ñu dem wax waaw mooy dëgg parce que nun waruñ toog si réew mi dig ñaan réew mi am jàmm ñu gis ko kay sabote soo sëb costume ak sa karawaat gu dëng nga di ñu bëgg rek kiti kii kaca ñu daal la bàyyi foofu nga continuer ba toog c'est pas normal président aussi bu ñu yuuxooti yuux yu métti yooyu buñ demee ba suñ ko yuux métti nu dóor nu siy wala dóor kenn siy faar bu nu yuuxoon na gestu daa nekk ko dóor parce que doom bu ànd ak baayam mooy bàyyi réew mi na xari neex na xari ko si nekka su nun may sa bàyyi bon bu gisee ku nu dóor te xamul lu ko dóoree na laaj kii ko dóor nekk lu tax nga ko dafa am ñuy xeexe état si réew mi yor état di ko xeexe si réew mi nag wóorul gisoon nañ Côte d'Ivoire te gis nañ faa mu mujje gisoon nañ lu nekk si réewum Côte d'Ivoire tey gii ñu nga ne di napp ay cuuc lu leer lay wax ku mën a xari nag convoqué ma fu la neex man yàlla laa ragal sénégalais yi nañ nekk si gàmma facture yi nañ ko xoolaat xam nga sax man sax dama lay wax lu ndaw nga dégg dinaa la wax tey waxu ouvrier parce que ouvrier la sénégalais yi nañ comprendre ne Sénélec muy SDE muy Sénélec kenn ku si nekk boo jëmee di jëndi ay compteur da ngay dem ut cinq échantillon dix étant échantillon bii gën gaaw bu ñëwee dañ koy installé fu yem benn place buñ koy installé quinze jours installé waat bii quinze jours installé bii 15 jours wala ñoo xam ni ñu koy installé bii gën a gaaw boobu la ñuy jël indil ko nit ñi moom ma daal bii passé nii ba ñu indil ma 600 et quelque 597 mille lu leer lay wax SDE laa nekkoon lu ma si waay wax nag te du noonu baalu ma la na leer parce que tamit nit ñi am nanu pour wax fii si réew mii man Sénégal gii laa dëkk te ndooy laa sant am naa droit à la parole kenn moomuñu man jaraaf dama ne président na ut commission buy dem di seeti compteur compteur yi ñuy génne fu ñu koy génne ak ñaata lañ koy génne ak ku ko liggéey ak nan lay demee vitesse bi ni mu demee waaw parce que loolu la SDE daan def loolu la Senelec di def parce que compteur yi ñëw Sénégalais yi ñu ngi coow ay pri non non problème bu du prix problème mu compteur ba ñu indi la président nañu dimbali si loolu yaakaar nañ ko lool lool lool li may wax nag bu fekkente dafa laaj gars yi rek dañ ko naan kii waxi picc la yor la waxi ku yem CM1 euh, CM2 la yor mais bu su bëggee am explication bu leer na ma oo oh, ma expliqué ko lu leer maa nga woon production SDE dama jóge production ñëw fii si euh, SICAP laa doon servir releveur laa woon. limay wax xamna ko bu baax a baax baax ñii nii defuñu lu ñu war te inspecteur yi ku ci demante di inspecter boîte so demee na nga nang yam ci inspecter mais mon loy ñew di inspecter nit pour contrôler ko pour xol compteur yi ak tout ça la nga ñew mu jox la 5 millions 10 millions nga ñibi lolu mané rafetul corruption bi dañ ko arrêté mako wax nañ ma jël yobbu bu le neex sax ñu ray ma sànni ma ci géej mais li nga sonal loolu la président dara sonal ko bu fekkee dafa yëkkal yëgal prix dafay contrôler compteurs yi ñu yóbbu nit ngi si kër yi boo ma waxee nag ne na dafa bari histoire loolu lañ def ba dañ maa jël dafa bane dóor ma benn étiquette tegal ma ko si kii bi si pale bi comme quoi que ne woy jaraaw dafa histoire histoire uma kenn gisuma may xey nan ma ngi dama bëgg nek nekk ab leew nekkuma dara mais dama ne man suma jamm ko ko bëgg xoti ma xoti sa jamm ñom ñom mom ni nek ci ngoo dafa tara dafa dafa tax def ni ñu dul yoon est-ce que d'accord nga tay ben affaire amul ben sénégalais bu ne man dama dama romb président mu ne ma no ma ki mu ne ma doxal fele président waxul ken doxal fele waxul ken dara lu ñaw ñoom ñii ci biir bureau yi ñooy def ñu lu ñaaw ñun ñii itam toog ci réew mi ñoo leen koy faj ba mu mat ba leen di faj ba ñu faju ba ñu wér lii moo mën a wax si ci compteur bi compteur bi ci compteur yi du jeex xam naa si lu leer lu leer a leer leer a leer fi mu ne nii ama mujj uti ji euh, euh, xéewal xaw ma naka nu tudd sax léegi si si quatre jours yi waaw si quatre jours yi maa ngi lakk maa ngi lakk dix mille quatre dix mille laa jënd war boog nañu chet si ko ku ñu indil facture six cent et quelques mille ak cinq cent et quelques mille ba yëpp nekk entre mille huit cent et quelques un million huit cent et quelques xaw ma deux millions et poussière